عني نفى إبليس في بحر ما يوم DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko la sa notification loolu mooy tax vidéo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf anina ba iblisa fi bahri ma yamba bismillahi arrahmani irrahim wa sallallahu ala حمدي وشكري لمن كل بسارة لوردا دون سخط عند سرسارة حمدي وشكري لمن كل بسارة لوردا دون سخط عند سرسارة والعدوان بلا سخة مسخاد لي من بني ديمان أنسارا لله كل لدى بار مكرمة لدانا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سرسار قد خسدوا سيارة الفارخ دارين أوسارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا سيارة الفارق دارين أوسارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا سيارة دارين رجاء بجاي أفضل من لله خلجا حمدي رب كريم لا سرك له وصدري اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات الله في أبد علي في كل بكلام الله ومن وكرمني عباد وكل من لخن بريا رحمن وابن جميع الخلق رحمة من يغني عن سليما قرآن وخرا خدمة المستوى عن كل مفسدة والترى بالخلق يا من جد بدا يا مالك الملك يا من جل عن خوادل ارب جميع الورى يا هاديا ردا موت الخلق من ترار بجا يفتل من لله خلجا سالك فضل الله يؤتي من يسعى الله كفل نيل كسر فلوكسا fadlu asimun sharifun farisun fadilul mbàkkeeg bu soobee la kii mooy njiite may wasila lor dem na xeewal yi baawante dootul jeex abadan ku sopp Serigne Fallou ku sopp Alaaji Fallou ku sopp Serigne Fallou xeewal wër la da du day la mën a daa fi abadil xayri tànneef ya xam nanu la sëriñ Fallu loo wax borom nguur ga gaaw koo def ne ay ki jubboog waa ahlu diiwaan ya seen mbooloo ma xam nanu la baytil wilaayatu sëriñ Fallu yaa yor fondement ba bu wér sëriñ ga yaa jiite mbooleem ku ne wàlliyu la gaal gaa teer ku nekk ba tarde ay xale ku dugg ci gaaluk sëriñ bi sëriñ Fallu àggale la sa tumbàkkeeg mu soobe ñam na baar ba masin ba jow na soobu dem gaar ba ku soppalaaji Fallu Mbàkke jógal màggal ko billaay fawu kon nga samaas ga ndax yaa ci mboolem lawli yaay alaaji Fallu yaay Musa yaay Muntaxa yaay waliyo yaay Serigne Fallo yaay Mustafa yaay Muntaxa yaay Waliyo sëñ Fallu yaa xam borom sëñ Fallu yaa gëm borom sëñ Fallu yow amoo morom yaay doomi Ahmadul Xadim sëñ Fallu yaa ñàkk ki ñaan doo tas yaakaari atum njëreer ya yaa ca ñaan Ahmadul Xadim sëñ Fallu feeñ Daaru Salaam guddik rajab ga siiw na moom mooy bis ba ni màggal ci moom ngir jëmmi ahmadul xadim sëñ fàllu feeñ daaru salaam guddik rajab ga siiw na moom mooy bis ba ni màggal ci moom ngir jëmmi ahmadul xadim sëñ fàlliloo gëm di gëm leneen sa diine doy na xarnu bi alaaji Fallou subhaana rabbika rabbil izati amma yasifuna wa salamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil alamin mbake ñu ngi ñaan yalla suñu borom guddal fan wi te wëral cër nga magal ko ay ati ci barkeb sa waajuru tedd wa ah sëriñ Gora ñu ngi lay siyaar bu baax di siyaar Serigne Cheikh Ngom mi nga xam ne day wëllëre ci kër gi di taalibe ci kër gi am yéene lool ci Serigne Serif moom sëriñ Fallou sëriñ fa sëriñ Serif it am yéene ci Serigne seex mi lool ñu xam ci lu baree bari kon nag kàddu yi dañ koy jox sëriñ góor a Gueye mu jottali kàddu yi bisimilah. جباين جانغام نصلى لول وايدي واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي نانال سالم نال ييب مو دافي كو نيم كو بغي اند كو مولم طالبي وايي نون لان كو نانال شيخ ابو البركه مام شيخ احمد الفادل مو ياك في لول تبر وايي نيغي سياره باخ سيرين شريف مباكي moom Cheikh Ahmadul Fadel Mbacke di la ñaan la gudd fan ak wér nan la ko waxe woon ca Porokhane rek noonu la koy waxe waat jotaay bi sag yàgg fi am na njariñ lool ci taalibe yi ndax nee naa ko ànd ak yow rek du dellu ginnaaw kanam rek lay jëm sa yoonu maam yi yàlla bu lu ci kenn ëppale ci barkeb Cheikh Ahmadul Fadel waaye nag na ma ko waxe ca Porokhane laa koy waxe waat fii sa xarit di sa taalibe di sa soppe di sa lépp muy Serigne Cheikh Ngom mu baax mi nga xam ne teraanga jim ñu yoon yónni woon ma ak jabaay mii ci xaan ji bi demee rafetlu na ko lool waaye kàddu yi mu wax ci yow keroog dégg nga ko muy mbooleem sëriñ bi lu mu nekk rek Serigne Cheikh yaa nga ca amut lenn loo xam ne mas na cee nekk muy réew mi ak bitim réew te nekk ko ca wetam tey nag moo ñëwaat fii. ci màggalu Kazu Rajab nang ko begg won nak ci karok Poroxaan dan neel jabaay ne ko serigne bi dama ñaanal bëgg na ci ah kon ñaan nga nanguna kon ndax ñew nga ci jam waye nak mu ñew and ak ñim baaxu andal ñepp di indi adiyam comme nim ko daan defee yaaram serigne cheikh nak nam na ko waxoon ca rek ni ñu ko waxe wat fi ci ci magal bu sa yoon mbolem lu ñu def ci magal gi rek mo koy def. ndax am na yéene jooju te xam nga pas-pasam ci sa jëm ak yéeneem ci sa jëm moom nag mu nekk nit ku baax nekk asgor nekk nit koo xam ne nii ñeene yéene ji ma am ci sëriñ sërif wala la si mënu ma ko wax ma teleegu ma ko nañu fi yàlla bàyyi rek ba yéene ji ma am mooy kër gee ca Poroxaan ah liggéey ko ba ni ma ko yéene liggéey jox ko caabi loolu mooy sama yéene yéene jooju yàlla na ko yàlla àggale tan ànd ko talibe yëpp ci barke Cheikh Amadou Fadel bis bi nak Serigne Cheikh ah la la Mbaye pex di wax rek ku ci fen dal doto neub te serigne zarif mi keroog bi jakarlo mo ak léegi barke Serigne Touba gis nañ suñ dem ji ak yokote yàlla xam na ko wax na ko keroog sunu maam la won ak Serigne bi waye sunu maam la won ak ak ak Cheikh amadou Fadel ndax El mam Ablaye Mbaye. ku kaman xamoon ak Cheikh Amadou Fadel waye ki jur sama wajur wu jigen kaman ne xamoon ak Cheikh Abdoul Karim taawub Cheikh Amadou Fadel kon nak ñun lip suñu lepp wa ko Cheikh Fadel lan kon nak bu amate tawfiq ji ni Serigne Cheikh no amone yene a jakkalo ak Serigne bi nga woñu ci loolu dañ ci am mbégte am contact di la ci ñaanal ci barke Cheikh Amadou Fadel suñu borom guddee so fan yok say tranga ci barke Serigne Touba kon nak dañ fay fekk sax suñu jëwriñ jo na ma nga netok momit di suñu kilifa ci li ñuy def wax deug yalla di ku baax ndax dama koy faral di wax baax du 800 way jegg na rew nit nu mel buñ koy waxtane du ko fekke ma sha allah yalla yalla defal la jàmm guddal soo fan mbacke noo lay siyaare bu baax a baax a baax ci barke Sëriñ Tuubaa defar nga sa jëm ba ku la gis bëgg la waye nga defar sa jikko ba ku jax sok yow tamit naw la te dotu la bayyi kon nak ñi ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa ah li nga xamne sa wajuri mom lay seddel yalla bu la ci kenn magal gi bari na de fu nekk lan koy magale waye ku deg saw tour na fi jaar siare Serigne Serif bala madem. dem. waaye sëñ Gora barke serigne Touba. sëñ Cheikh mii Serigne Cheikh. da wax ne. da wax ne. nako Serigne bi ñaanal bu baax. nako Serigne Serif ñaanal bu baax a baax ba buy ñëwaat fi ay camion lay indi. ndax ba buy ñëwaat fi ay camion lay indi. camion xamne ah ay gilem ak nak ak xar ak bay ak ginar ginaar yeen camion ci top ci ak ay furi ci. ndax loolu moo doon yéeneem kon dana jëbal kàddu gi rek. sëñ Jabaay ñoo ngi leen di ziar ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sant Maulana Cheikhul Khadim ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha al Bachir. ak Cheikh Abul Baraka mi nga xamante ni tey moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Fadlu mi nga xamante ni moo waral bés bi nga xamante ni ci lañ jëm suba di ñaan yàlla suñu borom yeggale ñu ci ak jàmm ñu ngi nuyu jataay bi yëpp di am mbégte lool ak kontaante. ci fekk ci suñu sang bu baax bii nga xamante ni mooy sëriñ sërif Mbacke moom cheikh Mahamadul Fallilu ak mbooleem njaboot gi di ziare cheikh Mahamadul Fallilu moom sëriñ sërif Mbacke moom cheikh Mahamadul Fallilu waaye noonu la ñuy ziare itam sëriñ Modou Bousso moom sëriñ sërif Mbacke moom cheikh Mahamadul Fallilu waaye noonu la ñuy ziare sëriñ Baara ak sëriñ Jili ak mbooleem njaboot gi yëpp. di eh, rafetlu lu eh, eh, bi ak taxaway bi señ bay ñi ngi len di ziar bu baax di sante bu baax olof nak dafa wax ni doomi géwél bu mu ma tass na yakari bayam kon bu ngeen fi ñewé and ak señ Cheikh wax ci mom ah menes na ci addu di santat señ bi rek señ bi dafa jabot te lepp danga wax léegi ne ku ko xam boo demee tuuti gis sa bopp ak yokkute loolu yaakaar naa ne suñu wayjur yee ci ginnaaw bay jaase ak bay baabu mën nañ cee joxe firnde waaye ku ci mel ni Cheikh Ibra Fall mais mën na cee joxe firnde ak sëñ Modou njaay ak sëñ Modou Mbay Sàmb soldaar ak sëñ Mbay saar yi nga xamante nii yàgg nañu sëriñ bi waaye nag sëriñ bi am ku mu feggool koo xamante nii ci mbokk yi la bokk di ànd ak moom fu ne muy sëriñ Cheikh Niass nga xamante ni lépp loo xamante ni sëriñ baa ngi koy def mbaa mu ciy ànd ak moom mbaa mbaa mbaa mu koy dox moom mi ngi ci ànd ak moom. sëriñ Cheikh Niass ñu lay ziar bu baax ak mbooleem daayir yi nga xamante ni ñoo féete fii Touba te kenn mënu leen ci bés bi kenn mënu leen ci liggéey bi waaye waxuma ñu mën leen ci wala ñu njëkk leen ci waaye lu ci ne dañ koy def te duñ ko te duñ ko boole ki wax ndax nag mbiru sëriñ bi dafa ànd ak loolu kon nag noo ngi leen di sant bu baax. te di leen gërëm di sant mboolem daayira yi nga xamante ni nii ñoo bokk ci fédération daayira ahbaabi Cheikh Mamadou Fallilou sëriñ Sërif nag jikkoy sëriñ bi rek la làmboo nu waay waaxoo ci moom noonu la lay gatandoo tubarkalla macha allah ci jataay bi fii ci kër gi bari na jàmbaar yoo fii gis yoo xamante ni nii tey da ngay jàpp na ci sëriñ Sërif lañ ne aslamtu nafsi ndax lan jikkoom ndax nag Cheikhuna Cheikh Ahmadul xadem Serigne Touba góor ga demoon kutu meeg daaw meeg lambar nag biri bi rek sar saara Serigne Touba nu waay ñëwee ci moom rek noonu la lay gàttandoo te Cheikh Mamadou Fall lu borom bés bi dafa waxoon ni feeg yéen a may gis Serigne Touba ngeen di gis waaye bu ngeen ma noppee gis rek doomi Serigne Touba ngeen di gis. sering bi nag yor jikkoy imamam sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Jif ju bari lol waaye wax ju lol kon magal gi nga xamante ni koy ren di 2023 ñi ngi ñaan yàlla nañ ko fekke ay at yu bare bare bare bare bare bare gën caa rafetunu fekke waaye nak duñu duñu wàcc suñu kaddu te sakku ñu ñaan ci mi ñaan ci liggéey bii nga xamante ni Serigne Touba maamam da koo teg ci loxoom muy musée du mouridisme kër barkeel wi al mathaful islamil xadim te Cheikh Mamadul Muntaxa mu Cheikh Mamadul Basir mi fi toogal sëriñ Touba teg ko ci loxoom balay suñu lay ñaanal liggéey boobu yàlla na yegg ah ku bëgg ndimbal de bu yeboo mu wuyu si la ci liggéey boobu ndax defaloo ko kenn lu ci waay def boppam la ko defal te sëriñ bi de ku ne xam na ne moom ñemul bor dafa am pay kon nag télé bii di DS xaw ma nang lan lu ca topp. Dieng Saala TV Dieng Saala TV lii na ko àdduna bi yëpp dégg daa am liggéey boo xamante ni sëriñ bi da ko woote te ku ci waay def sa bopp ko defal te ku ci feeñ dootoo nëbb. muy musée du mouridisme bi nga xamante ni Cheikh Mamadou taxa moo ko teg ci loxol Serigne Serif Fanta Madi Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadlilou bii te muy daara joo xamante nii ku dib murit mbaa nga dib jullit mbaa nga dëkk ci réew mi rek war nga cee tàbbal sa ñaq liggéey bu yaatu boo xamante ni diplômé chômeur nag am na ni ma koy waxee saasu ne waaye képp koo xamante ni am nga taw féexu lenn lu tax ci Serigne Touba liggéey lool war nga cee farlu te moom day ku ne xam na ni sëriñ bi de kenn képp dox diggante ba Cheikhul Khadim te ki ci doy mat la sëkk muy moom Cheikh Mamadou Fallilou waaye kan lañ ko duppe sëriñ sëri fantamaa di ay dara ca kankan kon xam naa ni bari na leneen loo xamante ni dina ci ñëw waaye loo kooku ku nekk xam na ko nitu yàlla boobu nga xamanteni ni mo moo féete ci kanka kànka te bërki dem boo mu demoon fa amon fa taxaway yo xamanteni yag na diko ko fa am waye ren ji mu wat fa te bu ko neexoon kat mu ne balay sa dafa xat ndax liñu tek ci loxom dafa dafa bari benen bi ci top màggalu seigne fallu gaangi ni di ñew waye déedéet balay sa ya bari jom ya bari ngor ya bari ful ya bari taxaway yalla suñu borom yeggal ci barki Cheikhul Khadim seigne Cheikh yaakaar naa ne loolu moo doon yi bu fekkente ne amna lu ci seigne bi di doli rek waaw kay jërëjëf sëriñ bi kaddu yi am na solo lool macha allah waye tamit suñu cheikh neena na sëriñ bi bala nga jël kaddu nga ñaanalal ko ñi nga xamne ñom la andal ndax mom mi kat ban jugee ñomit dañu jukk and ak mom ta ko na xamne na jamono ja lol ta amul waye lu bax rek moko ñor mom suñu cheikh bu ko neexon and mom dongu ñew dana ko matale sëkk. waaye dana lu baax ñëpp ci xaj daal di ànd ñii nee na Mbàkke nee na nga ñaanal leen bu baax a baax ñoomit it ànd gii ànd ak moom bu fi del si waat di indaale camion yi yàlla na ko Cheikh Modou Fadal def mu ànd koog ñoom ndax moom kat lii yéeneem waxuma la ñun waaye mbooleem sëriñ bi xam na ko waaye ku taxaw sëriñ bi xam na ko yéeneem ci moom ci biir Cheikh Modou Fadal bi. waye ca poroxan loolu rek moy ay moy ak beugam suba ak ngon guddé ak bëccëg loolu rek la ne woon nañ ko ci doli nga ñaanal ñi mu andal momin mbacké di sakku war rek ci mom nga ñaanal nga ñaanalaat ko bu baaxa baaxa baax ndax ak yenem ak ku beugam ci yow boko mu dem sax nga xamné ku bëgg sëriñ mom Cheikh Fadal ma nga ne dem mom sëriñ Cheikh mi barké sëriñ Touba li yenem ci mom lu ab sëriñ loo ab taalibe wala ab soppe wala xarit di defal ab sëriñam am na yéene ji moom defal la ko moom sëriñ Cheikh mii ku ko xamul sax ba dégg turam daa xam ne moom am na yéene jëfal sëriñ si loo xam ne nii ñëpp aduna bépp dinañ teg seen bët kon nag loolu yàlla na ko àggale sëriñ Cheikh ànd kok sëriñ bi ak taalibe yëpp loolu la ne woon dañ ko ci dolli rek su noppee rek nu daal di jox sëriñ bi moom it. auzu billahi mina seytaani Bismillahirrahmanirrahim. ñoo ngi leen di nuyu bokki talibé yi fi yépp di jiital nuyo bi serigne Tamata mi di sunu buntu ci serigne fallu ta maté ko sëkk di ñaan sun borom katanal ko gën ko wéral ba na ma liggéeyal maam serigne Touba sun borom defal ko ci lu kawé njortam di ziarat seigne Cheikh Ngom bu baax ak mbollem ñim andal di ko sant bu baax ci teranga yi serigne bi gis na jëf ji ta xamna nim toll ndax li ciy firnde moy barki dem rek seigne jabay ngeen joge poroxaan yak seigne lam mi indi ay teranga yo xamne ne moko yonne won ni nga waxe legi ci biiri wax mu sakkon serigne bi ñaanal ko ngir mu meuna fekk ci magalu Kazu Rajab serigne bi defal na la lola gis nga ko kon ñoo ngi ñaan serigne Cheikh Ngom li nga namu ci ëtt bi ndax soppeeb serigne fallu nga top serigne Serif ne ko dann rek di xeñtu serigne fallu ci mom ta loola it barab bi ni ma ko waxee ci suba ci biir rek fi mom yaakar du fi tassé mukk ndax mom mi eh, xamna wayam je ndax da ko doylo lol xamna wayam ji serigne fallu kon fi yaakar du fi tassé eh, kon yitte ji nga am ak passef bi ak bëgg yokku gi ak niko ko jëwrin ji waxé légui sëñ Lam ci da nga bëgg bu né ay camion lépp nga yap ko indi ngir di xéñ si bëggu sëñ fallu ci sëñ Serif loolu mom ci sa pass pass lay waye waaye wuñ na man na nek ta doxine wi ngay doxine nak firndel nako kon yalla nañu sun borom motali liñ bëgg lépp dañuy wacc foofu suñu kaddu bu ko déxé jox sëriñ bi bu amee kàddu yoo xam ne daf ko ci jottali ñun ñëpp ñu maas ko déggal ndax yosam moo gën a matale suñu yos kon nan ko teewlu ñun ñëpp sëriñ bi nee na bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu bokk yu tedd yi fi teew yëpp di leen ndokkeel ci lii ñu fi dajale muy màggalu sëriñ Fallu di ñaan sama borom may nu noo àndaat ko lu mu gàtt gàtt yu ànd ak wér ak wér le ak yokk ci saaxir ak ci baatin di ci toftal nag kàddu cant ci mboolem bokki taalibe yi ci mboolem bokki taalibe yëpp yi teew fii yi teew fii ak yi amoon yéenay teew ak yi amoon yéenay teew waaye nag di ci jiital waaye sama bokk yi bàyyeekoo géejawaay sama bokk yi bàyyeekoo géejawaay ndax ban dalee ànd bis bi xam naa ne ñaar fukki at ak juróom-ñaar moom mat na ko. ne ñaar ak juróom mat na ko. te at mu jot. te at mu jot. Eh, dañ daan ñëw. dañ ba fii ne loolu la def. ba fii mu ne loola la def. gàddu coono yëpp. gàddu coono yëpp. ak noflaay bi. muy sëriñ Ibra Fall ñoom ñii sëriñ Ibra Fall sëriñ Cheikh Seck ak. ak mii. ak sëñ du Ndiaye ñoom ñëpp ñu fi teew ku lim juum. kon cant gi ñoo ngi koy dale ci ñoom. kon nag cant gi ñoo ngi koy dale ci ñoom. ndax waxtu wu ñëwee. ndax waxtu wu ñëwee. ñooy dalal gan ñi. ñooy dalal gan ñi. ñoo leen di toppatoo. ñoo leen di toppatoo. ni ma ko waxee léegi féete coono féete woo coono bi. ni ma ko waxee léegi féete coono bi yëpp. bàyyeenu ak noflaay bi. bàyyeenu ak noflaay bi. xam nañ bu baax ni mu toll. loolee xam nañ bu baax ni mu toll. lañ cay teg. lañ cey tek di sante serigne cheikh ngom mi nga xamne di serigne cheikh ngom mi nga xamne mom ngeen andal mom ngeen andal euh, di sunu xarit di sunu xarit man na wax ne di sunu bokk sax man na wax ne di sunu bokk sax ndax no bokk serigne fall ndax no bokk serigne fall no nga xamanté ci rew no nga xamanté ci rew dekk bu ñu wax brésil dekk bu ñu wax brésil ban fa dajé banu fa dajé biñ nuyo biñ nuyo man day mbuur laa dëkk. mu ne ma man day mbuur laa dëkk. waaye damaa sopp sëñ Fallou lool. waaye damaa sopp sëñ Fallou lool. man nag damaa ñëw fii ci Brésil. man nag damaa ñëw fii ci Brésil. waaye Argentine laa nekk. Argentine laa nekk. damaa bëggoon nga gane si ma. damaa nga gane ma Mbàkke. daa di jënd bi yëpp avion. daa di jënd bi yëpp avion. jox ma jox ma. ba ma ko fekkee Argentine. ba ma ko fekkee Argentine tamit. ndax foofa ca capital ba ngay wàcc. ndax foofa ca capital ba ngay wàcc. mu daal di may jëlalaat bii beneen billet avion. daal di may jëlalaat beneen billet avion. ma fekk ko ca dëkk ba mu nekk. ma ko dëkk ba mu nekk. dëkk ba ma ngi tudd Cordoba. dëkk ba ma nga tudd Cordoba. ñu duppee ko dëkk bu mbokkal aw tur ca Espagne. ñu duppee ko dëkk bu mbokkal aw tur ca Espagne. boobaak léegi nag kóllër googee lañ jàpp. boobaak léegi nag kóllër googee rek lañ jàpp. di ko di ko di ko ànd ko ko di ko dox. ànd ko di ko dox. mu rafetal ko lool. mu rafetal ko lool. Euh, at mu jot ma gane ko. at mu jot ma gane ji ko. bu ma day génn néegam te bu ma demee day génn néegam. moo waa këram. moog waa këram. falaay dal ba sama yitte mat. falaay dal ba sama yitte mat. ak yeneen ak yeneen. ak yeneen ak yeneen. yoo xam ne buñ ko doon lim danañ fi yéex a jóge lool. yoo xam ne buñ ko doon lim danañ fi yéex a jóge lool. kon nag maa ngi koy sant bu baax. kon nag maa ngi koy sant bu baax. di ko gërëm bu baax. di ko gërëm bu baax. lay firnde ci jàpp gi. ci jàpp gi. mooy wax nañ ko fi léegi mooy poroxaan. mooy wax nañ ko fi léegi mooy poroxaan. ba mu yëgee ne la. ba mu yégee ne sunu yitte la. moom mii moo ci njëkk def alalam. moom mii moo ci njëkk def alalam. tàmbali woon faa def ay mool. bañ tàmbali woon faa def ay mool. waaye xam ngeen ne daa dajeeg tëju gi ci fan at yi weesu. waaye nag xam ngeen daa dajeeg tëju gi amoon ci at yi weesu. adduna bépp tëju. bépp tëju. ndax boobaag léegi daanaka doxaatuñ ci ay am solo. ndax boobaag léegi daanaka doxaatuñ ci jéego yu am solo. waaye bi loola tàmbalee leeraat bi loola tàmbalee leeraat. ba ci màggal gii nu mujj dem. ba ci màggal gii nu mujj dem. ci la yebal sëñ mbay mi ak sëñ jabaay ci la yebal sëñ mbay mi ak sëñ jabaay mi. lim. jox leen ab lim. ne nañ ma wax ne. ne leen nañ ma wax ne. fa mu nekkoon ci yéene. fa ma nekkoon ci yéene. ak ab taxawaayam. ak ab taxawaayam. jamono xawoon a dër rek. jamono jee xawoon a dër rek. waaye fa laa nekk ba tey. waaye foofa laa nekk ba tey. loolee fa saasa. loolee nag fa saasa. Cheikh uh, Diassé ñu bàyyi woon ko bàyyi ko woon Kaolack. Cheikh Diassé ñu bàyyi woon ko Kaolack. ñu bàyyi ko woon Kaolack. Cheikh Diassé mi bàyyee ko woon Kaolack. ndax moom gannaaw moo gën a jege foofa. ndax moom gannaaw moo gën a jege foofa. lañ doon taxawaloo liggéey. moom lañ doon taxawaloo liggéey ba. ma jox ko ko. ma jox ko ko. loo ci mën a am ne ko nag loo ci mën a am ci saako yu ciment. wala ay mool wala yu demee noonu. wala ay mool wala yu xeetoog moom. kon nañ ko ca kon nag nañ ko ca def. la ca toppit mooy lii. la ca toppit mooy lii. jiitu jiituwut tey. tey. kon nag duñ man lu dul sant ko. kon nag duñ man lu dul sant ko. sunu xel it dellu ci lam mu njëkkoon a wax. sunu xel it dellu lam ñu njëkkoon a wax. ne soppeeb suñ falloo. ne soppeeb suñ falloo. kon jëfagut luy weddi loola benn kon nag jëfagut lenn luy weddi loola benn yoon. te itam jëf ji kanam la jëm. te it jëf ji kanam la jëm. Ah, ndax lii nu mujj wax ndax lii nu mujj wax yokku na ci. nee na defar defar kër ga ba mu te nee na yéene mooy defar kër ga ba mu àgg. xam naa lim ñuy dimbalee rek. xam naa lim ñuy dimbalee rek. nu jàppale ko ñu jàppale ko ci kon. bu nu amee suñu saakub ciment def ci. bu nu amee suñu mool def ci bu nu amee suñu mool def ci. kon yàlla nañ ko nag dañuy ñaan yàlla nañ ko àgg ba mu àgg. yàlla nañ ko ànd ba mu àgg. te soxna jaara ma tax ñu di ko def. te soxna jaara mi tax ñu di ko def. nangul nu ko. nangul nu ko. te barkeel lépp. te barkeel lépp. defal ñu yokk ci saayir. defal yokk ci saayir. ak ak ci baatin. xam ngeen ne mbuur yi daana fa woote cant santuk sëñ Fallu mi ngi koy def ba tey xam ngeen ne it mbuur daana dem nañ fa ay yoon fekk ko fa dem nañ ay yoon fekk ko fa waaye lu ne la cay def waaye lu ne la cay def diggante ay ay diggante ay nag ak njàngum alxuraan ak njàngum alxuraan ak ak yéen a demee yëpp ak yéen i demee yëpp lay firnde ci taxawaay bi tam te lay firnde ci taxaway bi itam. daw jeek ban demee. ci hôtel la dem jël fa lu ba ay néeg yu bari. ca hôtel la dem jël fa néeg yu bari. ñun ñu dal nga xam ne moom sëñ beeg ñi mu dañoo dal ba mu kon lim wax ci diggam ak señ Fallu. manes nako koo bu baax. bu baax kon nak yal nako ko defal yokku. ta defal leen ko yeen ñi ngeen and ak mom ñep ci barkeb Cheikh Mamad Fadal. ak ci barkeb bisam bi ñu dëgmal. ci barkeb Sëriñ Tuuba. mi nga xam ne moo waral lépp. ndax moom ak cofeel ndax moom it ak cofeel moo ko booleeg sëñ Fallou waaye ci sëñ Daaru Assane waa kër sëñ Daaru Assane lay sopp waaye ci waa kër sëñ Daaru Assane Ndiaye lay lay lay la jébbulu waaye nag loolu waaye nag loolu du bett kenn du bett kenn ndax sëñ Fallou moo ne ndax sëriñ Fallou waxoon ne sëñ Daaru Assane Ndiaye mooy yoonu murit sëñ Daaru Assane Ndiaye mooy yoonu murit kon nag lépp benn la kon nag lépp benn la kon nag jërëjëf sëñ Cheikh sëñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm yaa ngi ñi nga àndal ñëpp ak njaboot ga ca kër ga jërëjëf sa sëñ Cheikh kàddu yaa ngoog kon foo yem rek yaa fa yemale sa bopp. ñu ñëpp tàllal sëriñ bi def ñaan amiin Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér yàgg fee ñëw yàgg fee fekk ci barke Cheikh Abdoul Fadil amiin amiin.